gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi maddalana al imaana wal islaama wa ahsana al ihsaani asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci bés bii di bés bu tedd di bés bu nga xamante ne nii bu bésu mawlut mawlutu lay nu nabi nga xam ne alaaj sëriñ Gueye suñu jàmbaar ji moo ko daan taxawee daana suñu borom dolli koy leer dolli koy maxaama tey jii njabootam nekk fi ki fi nekk di suñ seexu naa Gueye yóbbu bés bi fu nga xamante ne nii ñëpp amoon nañ ci yaakaar ndax liggéeyub Alasaan Gueye waaye noo ngi nuyu doomam ji di Serigne Saliou Gueye Badar tey jii ñu nekk ci këram parce que ne waxtaane bés bi nga xam ne moom la wuy juróom daan taxawe fii ah dëkk bii nag nga xam ne si lañ taxawale bés bii dëkkub lislaam la suuf si jàmm yàlla moo tax ñu gor ko sëñ badar may mi nga xam ne moo gor fii goroon na ay badar waaye ngir gàttal rekk badar gii la mujje gor te badar gii taalab jàngu bi nga xam ne tey jii moom la sëñ naa mii yor moom la fi taaloon ànd fa ñi mu àndaloon ay jarbaatam ak waa caameen di fi jaamu yàlla di fi jàngale alxuraan ne moo fi jogee badar bi nañ ma sang ci ndox mi denc ma suuf si mu ngi ne si kër sëñ Mayib bi kon nag dëkk lu boo xamante ne nii ñii ko wuutu si lislaam rek lañ ko doon ne moom lañ fi mas a taxaw bés bii nag mu doonoon bés boo xam ne mu doon bés boo xam ne bu masaa dikk weeru rek bu masaa teru ku mas a gis alaaj sëñ Géey xar kanam nga mbëgt nga see gis ak wàccaayu bés bii nga xam ne suñ seexu naa sax dafa ñu wax ne màggal ak gàmmu liggéey bi benn la ndax wuy juróom noonu la ko taxaweloon bés bii nag ku ne fekk na ko fi waaye dëkk bii nag ku ne fekk na ko fi mu mas fi taxawee taxawaay boo xamante ne nii lislaam ñépp daanaka ñi ko umpale bariwul waaw ba tey jii njabootam wuutu ko fi ki fi nekk di siñ seexu naa yëkki bi yóbbu ko foo xamante ne nii képp ku fi daan ñëw ñëw fi xam nga ne bés bi ka fooxi na njorta aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te leen ziar di jiital ci nuyu bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom guddal fanam ba yéene yi mu am yëpp ngir liggéeyal Cheikhul Khadim suñu borom mottali ko gis neen yéene ju kawe jam am ak yitte ju kawe jam am ci liggéeyal Cheikhul Khadim te loolu mu yàgg koo taxawee yàgg doxe noonu ba tey yoon yépp nekk ci loxoom ñëpp maase nangul ko ñëpp maase topp ci ginnaawam ngir xam ni ku topp ci ginnaawam doo juum te fa nga bëgg yegg di nga fa yegg kon kilifa gu mel noonu ku ko am war ngay saxoo di ko ñaanal ginnaaw loolu itam ñu ngi ziyaare sëriñ naa Géey Badar di xalifab alxaaji sëriñ Géey Badar kon ne gis ngeen taxawaay bu rëy bi mu am ci dëkk bi am ko ci yoon wi nga xam ne dara soxlu dara lu la fi bàyyi woon lu ci nekk at mu jot di gën a kawe di gën a yaatu di gën a rëy taxawaay boobu la am ñi ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam te yokki wéram ñi ngi siyaare mbooleem ñu ñëw ci gàmm gi di siyaare kilifa gii fi jóge léegi sëñ Xabibu Mbàkke ànd ak sëriñ Sohaybu eh, ak ay rakkam yëpp ñëw fa ñëwoon fii ci kër gi di siyaare tam sëriñ Abdul Ahad Siise mi nga xam ne moo nekkoon fii ci barar daan ñu jàngal alquran ñun ñëpp tàmbale ko ci sëñ Mayib sëñ Abdul Ahad sama mag man sëñ Saaliw ak maam Omar ñëpp ci loxoom lañ nekkoon di jàng alxuraan ak taalibe yi nekkoon ci kër gi yëpp mu taxaw ci nag taxawaay bu am am solo taxawaay bu am positif boo xam ne man diggante bi ma jàng ci moom yàggut waaye ci loxoom laa wàccee alxuraan moom te itam li ma diggante bu gàtt gàtt rek lañ nekk waaye mu wane ci positif goon man mi tam yàlla dogal mu soppoon ma tegoon ma ci wetam ngan bu daan jàngale bu bu nekkoon may na ci wetam ngir taxawaay bu mu amoon ci man ak yéene ci woon ma man alxuraan taxawaay boobu nag ku ko am ku ko am ci yow ba tey lépp suñu borom dogal ko ci ñun ci alxuraan ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm boobu nag duñ xam waaye boo ne ba nekk mag di nga xam kii taxawaay bi amoon ci yow ak yéene yi amoon ci yow te li gën a rëy ci ñun ñu koy ndam mooy alxuraan kon moom mi nga xam moo amoon taxawaay boobu ci ñun ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bi ñu amee mbégte nag mooy mu ñëw dagg yitteem ñëw ci kër gi di siyaare itam suñ ndijaay ji sëriñ mu Mamadou Assane Diop ñu ngi lay siyaare bu baax di am mbégte ci jotaay bi moom suñ ndijaay la suñ wétt la suñ xarit la wax dëgg yàlla ñu ngi lay siyaare baax sëñ Taali Diop ñu ngi lay siyaare sëñ Taali Diop doomi sëñ Balla Diop masar la waajuram ku ne xam na ko ci ci njàmbaare ci lislaam doon nitug yàlla gu kenn du nattable waaye moom itam wëlbatikuwaat bokk ci baral nag du sunu boo xam ne moom day taxalaatoog yooyu rek waaye ñu ngi koy sant bu baax di gërëm ci bokk gi mu bokk ci baral nga xam ne ku ne xamoon ne diggam ak alay siñ géey ku nekk itam xam na ko ci digganteem ak njaboot gi moom mu taxawaay bu rafet ñu ngi sant mbokki taalibe yëpp suñu bu jeeku ko xam-xam kook alay siñ géey moom itam di sama xarit suñ bay bay di sama wóllëre di sama wéttal moom doonoon xarit ala suñ géey bu yàgg-yàgg suñu bu jee suñ mbay géey suñ mooru kara ñi ñëpp ñu bokkoon daara ji lii nag day wane ne àndub dëgg la ndax ñun ñi fi nekk ñëpp ñoo nekkandoon fii di fi nab na ak di bëgg lu baax ba tey suñ borom boole ñu ñu ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm di am mbégte lool ci mbokki taalibe yi nga xam itam at mu jot ñu dagg seen yitte ñëw ci dëkk bi dëkk bi sori na ni mu war a amee yoon amewu ko waaye at mu jot ñu dagg seen yitte bàyyi lépp ñëw ci dëkk bi ngir yàlla ko taalibe ak bëgg gi nga xam bëgg nañ ko alal sëriñ gi ak bëgg gi nga xam bëgg nañ ko dëkk bi dëkk bi nag <clears throat> dafa bokk ci pàkk yi nga xam ni lislaam ko tax a jug borom nag wëree na ko fu ne ndax sanc na ay dëkk yu baree bari waaye fu mu sanc du méngoog dëkk ba mu soxla mu wàcc fa dëkk boobu jàll moo am na dëkk yoon bàyyi na kook ay ay jarbaatam yii bàyyi na kook rakkam si Maxtaar Géey di wër di wër di wër réew mi rek ngir suuf si la doon wër booba ndax nit la woon koo xam ne Sëriñ Tuubaa boo ko seedeel ni Habib Gueye de almashhuru bi zuhdi wal wara ku siiw la ci dëdd akuk saam loolu Sëriñ Tuubaa du waxee bakkan te itam ku Sëriñ Tuubaa bëggoon a gis la waaye mosuñoo gisante ci zahir dafa bis euh, sarax suñ daje woon Sëriñ laajte ni ndax Sëriñ Badar Mayib ñëw na fi ñu ne ko déedéet ñëw fi ñë waa ñu ne ko ñëw na fi mu ne man de dama ko bëggoon a siyaare ci lan ko wax ni ko mi ngi bërëb sàngam ci dal bi ci dal yi nekk foofu suñ Tuubaa jug dem seeti ko foofa ngir bëgg koo gis ñu ne ko déet moom de daa mel ni génn na doon waaj sax ngir bëgg a dem Sëñ Tuubaa génnaat ca mbedd ba ngir xool ko fa bi mu dikkee nag la ko gis muy pëndal aw fasam ànd ki taal bi mu di dem moom Sëñ Badal muy nag ma am yéene bëgg koo topp waaye suñ borom suñ borom nag moom ay topp ku lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neen liyee tere ma topp ko <laughs> loolu nag te boobu Sëñ Tuubaa wuuteegul ci saa yi rek nit di dem nga war koo topp waaye neen mënu koo topp ndax suñu borom moo ko aaye boobu yegg na foofu ci marte ba bëggoon ko loolu daan ko bind ay leetar ba leetar bii ma la wax muy téer bu mu soxloon ci sëñ ci suñ baral mooy moom suñ Tuubaa ci ne ko bu fekkee ni ah, mën naa koo jënd ma jënd bu fekkee man nu mu jàpp ci yow rek ma def ko ma amee ko ci te loolu itam day wane ne suñ baral muy borom xam-xam loon ba yéen téer bi ko suñ Tuubaa daan soxla daan na ñëw ci moom di ko fi sàkku ci la ñëw ci dëkk bii nag sanc ko bi mu sanc dëkk bii nag dañ bi nga xam ne moom laa doon seet daan bu ma bu ma fi jugee nañ ma sang ci ndox mi suul ma ci suuf si fii nag mooy sama mujjug sanc dootuma sanc pour dëkk bii fii la mujj a sanc bëkk ci sanc moom itam moo waxoon ak njabootam leen am na leer gu nekk ci penku yi bu wootee bu leen fa kenn jiitu moo tax moom xaadir loolu waaye ci la suñu Omar dem jébbalu suñ Tuubaa ak suñ Mor Asta ak ñeneen ñoo xam ne tam boobu lan daal di dagg seen yitte yëpp def liggéeyal suñ Tuubaa mu seen yitte boobu ay sëriñi daara lañ woon jàng xam-xam bind alxuraan mënoon nañ ko lool waaye bi suñ Tuubaa nag te lim yor nag moom doon leneen loo xam ne daanaka nit ñi miinuñu ko woon ñoom itam ci lañ dagg seen yitte yëpp topp Seexul Xadim di ko liggéeyal nag suñu Omar Gueye suñ Tuubaa da koo sampoon fii wax nañu képp ku naan am di fa dem sax moo xam da ngay jébbalu moo xam da nga koy am na ay yoo fa demoon di ko sàkku ndimbal waaye daa jël lettre joxaat suñu suñu Omar Gueye ñu leen képp ku xam na dem ci Omar moom si morose tam taxee woon taxawaay boobu di liggéeyal Sëriñ Tuubaa fekk nañ ko bërëb yu bare bari suñ morose gis ngeen xumaag ba mu fekk Seexul Xadim Euh, Serigne Touba dafa wax ni dafa tàngal warga ci loxoom am na ñu wax warga sax waaye nee nañ bernde yu def na ko bi mu tàngal warga yu di ko joxe lan ne képp koo xam ne sama teraanga yi tey am nga ci na nga ko sante Moras ndax tey moom laay gënale keroog ba mu la def yitte jàpp fii daa ne tudd yàlla ak julli ci yonent bi yegg Serigne Touba pas boobu la amoon pas boobu nag xam naa loolu Serigne Touba xam defal koy berndeel waa kër gépp ñu ne sama bernde yi képp ku ci muus rek na nga ko sante moo rasa bi ndax moom lay bernde am na bis itam mu di fekk Sëñ Tuubaa am ay jafe-jafe yi mu daan bindee yu dem boobu bi mu dikkee fi ci ay taalibeem yu fi nekkoon ñoom la ko def loon sot la leen ko ak liñ koy sart yi koy sot ak yooyu ko Sëriñ Tuubaa bi ko demee yóbbu ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dem ko de yitti woon nañ ko lool mun ko xam ne yitti woon nga ko moo tax mënuñoo yendal mënuñoo fanaan lu feek dañ la ko indil pas-pas boobu la amoon suñ Tuubaa nag bëggoon ko lool lool fekk na ko fu ne ci liggéeyal ko xam naa waxtu wee gàtt ak ñi bëgg a euh, laamisoo kii ci bis bi moo tax ñu koy tënke noonu ñooñu nag ñoom meññi suñu Omar Gueye moom nag moo njëkk a def gàmm gi fii moom suñu Omar Gueye li la war ni fii itam dëkkul islaam la mooy suñu Omar moom moom Omar lañ ko tuddee muy sahaaba Omar waaw Seydina Omar Aboubacar suñ mora suñ mëyib amoon na ko suñ mora sa mi mooy juróom-ñaari doom ju mu tuddee bi sallallahu alayhi ndax day tudde yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy dem di ko tudde ba ci suñ mor asa mu jur alaaji sëriñ mu jur nu mooy ki mujj tudde yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ Tuubaa itam moo seede woon ne xàmmee naa ko ci xarab Badar ba moo suñ Badar mayib moo ko wax doom ji ñu wax suñ Xadi Géey moo ko suñ Mortala Géey mi mu nettali ma ko nee na keroog bi ma demee ba nuyu ko dama dan ma kuy sa waajur ma ne ko suñ Badar mayib mun ma ci sa bàyyi de xàmmee naa ko ci xarab Badar mi ko jàmbaar la ci woon loolu suñ Tuubaa wax loolu ci ci suñ Badar mayib ak yeneen ak yeneen waaye ñoom itam ñu liggéey suñ Tuubaa ba suñ Tuubaa jóge fii ñu topp suñ Mourou Moustapha moom bu fekk suñ Mor Asta nekk fi topp di ko liggéey liggéey bu wér a wér boo xam ne bu daan bay li mu daan bay ndax ku moomu dëkk te amoo boo xam ne dañ naan la fii toolam la woon boo xam dugg benn kenn ku ñëwoon sax ne a tool naag jëm mag damaa denc soxna fi ne fi tool bu may bay waaye doon fi tool bu fi tool am mën fi jóge mu amatul tool ci dëkk bi jël lépp di ko lig boobu tund ñuy seex si fi nekk taalibe bi yëpp fi lañ daan bayee tool àllarba yi nga xam ni moo loon daan dajal di ko def ci jumaa ji moo tax li gën a rëy ci yoon murit jumaa ji te murit yi di ko gën a ndamoo kenn ëpp ko ci lu ci jëf waaw moom jitteem yëpp bëggul woon dara lu dul yoon wi jëm kanam ak ndam moom suñu mbër Moustapha waaw maanaam di gëm suñu mbër Moustapha nag ku ci ñëw moom di nga ci sor di nga ci sori lool waaye noonu la toppal suñu mbër Moustapha bëggut bañut soxlawut dara ak njaboot sax daana ko am dikk suñu mbër Moustapha moo koy ku ko tuddee ndax am na doom ju mu amoon fii tuddee ko sëñ Basiru sëñ Modou Moussa wóolu ko fii fekk gerte gu doon peese bi mu dikkee nuyu ko ne ko am ah, day mbàkki kër gi dama faa bàyyi woon gan bëgg ko wax ne ko nag waaye sëñ Basiru laa am ku ne ko ah yow de géey am ko sens waaye bu nag mu ne ko boobaan <laughs> bu fekkoon nag tuddee tuddee ko sëñ Basiru mu ne boobaan ma ni mu woon sëñ Basiru doom ji mu tuddee sëñ Basiru moom sëñ Mor Asta sëñ Modou Moussa moo ko jox ndigal te fekk defoon na ko ba noppi nag xam naa nag boo fekk xam mee nag bëgg-bëggu sëñ sëñ sëñ Modou Moussa jaxasoo woon nañ lool lool nga dëkk bii sëñ Modou Moussa at mu jot dafa daan ñëw waaw maanaam ala sëñ wax naan tund wi ku ci xam ala sëñ ku fi xam sëñ Modou Moussa fii nga ko xamee te bu daan ñëw day ànd ak sëñ Basiiru ànd ak euh, oto bu mag bi nga xam ne ñoo daan def ñi ñiy jàng kaamil yi si euh, waa Daarul Muxti gii dañ fi daan ñëw sëñ Seex Awa bala sëñ Modou Awa Balla képp ku sëñ Tuubaa njabootee itam ñoo ngi ci dëkk bii comme man di doon ñëw nga fi ci dëkk bi tàmbale ko suñu mbuur Moustapha ba suñu mbuur Moutada doonoon ñu doonoon nag ay taalibe yoo xam ne ak taalibe dong la ñuy xeeñ suñu mbuur Moustapha suñu Mor Assa daraja yi ñu amoon ak ndurówoon suñu mbuur Moustapha ñu ko tax daal bokk suñu mbuur Moustapha jotaay mosuñoo bokk jotaay waaw mos na nangoo bokk ak suñu mbuur Moustapha jotaay ngir ak taalibe ñooñu nag ñoo meññi alxaaji Serigne Gueye ci taalibe mu gën a jamoon nag fekk fii ak taalibe fekk fi liggéeyal suñ Tuubaa ndax ki mu fi nekkandoon ndax moom xamut bàyyi waaye boobu suñ Mor Alima Gueye ngi fi te suñ Mor Alima sax moom Sëñ Tuubaa ko yar far ngan moom booy xool bëgg Sëñ Tuubaa moom moom fii la ko xamee waaw damay wax ñoom mbéy gi ni allah siñ gi daa bëggoon Sëñ den Sëñ Tuubaa am jàpp na moom moom Sëñ Tuubaa yëfa ne moo ko moom fa la ci bëgg ko Sëñ Tuubaa nag bëgg gi ko defaloon gi ko bëgg ak nangoo gi mu nangoo sonn ci moom tax na Sëñ Tuubaa defal ko lu ne waaw tax na Sëñ Tuubaa defal ko lu ne mu doonoon ku amuk taalibe ku bëgg njabootu Sëñ Tuubaa gi yëpp woyof ku mën a dimbali doomu aadama ku mën a nangoo ci seexlu nangoo liggéey suñ tubaa fi noonu màggal tuubaa ni mu ko naan waajee nga xam ne suñ tubaa ku ko ku ko ku ko ñor la ndax màggal tubaa jub si la yónnee booba kii wo woo euh, kii Assane Saw bindal ko turi ñu nekk ci àll bii maanaam bu dee borom kër mu ne cinq euh, jigéen nga day jox cinq mille borom kër ga dix mille gone deux mille te tour pour tour la koy topp ba ci dongee daara yi nekk ci kër gi noonu defee Touba borom kër yi nga xam ne na leen dimbali ñii cinquante mille ñii trente mille ñii cent mille ñii nangam te ay fooy la koy bind ba noppi itam doog jublu ci màggal bu màggalee ba noppi itam doog jublu ci gàmm gàmm itam gi boo dikkee loo ko leen da ko wa ngir pas-pas <laughs> euh, la daan àndeeg la daan àndeeg njabootu suñ tubaab gi woon koo xam ne daal xam naa waxtu yee ko mayut ak euh, gan ñeeg yu ni demee waaye ku bëggoon Sëriñ Tuubaa nàmputal ñu ci la ñuy dox di yàgg fi képp koo xam ne itam nekk nga fi di njabootu Sëriñ Tuubaa cër bi la suñuy waajur joxoon suñu maam jox leen ko dinañ la ko jox ndax gisuñu lum leen wàññi te gis nañ lim leen jëriñ te jëriñu dong lañ bëgg a def ci àdduna asalaamaaleykum wa rahmatullah kitaabuka diini waaleykum salaam sëñ Mourtalla tey yaa ngi fekk Badar Badar Gueye ñu fekk ñu fekk ñu fii ci dalu sëñ Saliou Gueye Badar ak sëñ Abdou Gueye sëñ Basirou Gueye ñoom macha allah dal baa ngi nii euh, taw feexi na lool biñ xëyee ba tey maanaam bernde yi bari na gaa yaa ngi dem di ñëw macha allah euh, buñ xëyee ba léegi daal ñu ngi ci ndekki jàll na sànq ci agri euh, waaw biñ xëyee daal def nañ kafe daal di def ay ginaar yoo xam ne macha allah. Euh, boole ci yu baree baree baree xewal ñu ni déet ñu teg ci ay caagri rek pour ci yor yoor bi noonu caagri yoo xam ne nii soxna Guèye moo ko doon defar macha allah caagri yi moom nee naa leen kuy wute kuy kuy kuy defar looti caagri ñëwal ci moom ku bëgg a koo laaj moom maa lool lool wax dëgg yàlla dëgg yàlla. añ ñi ñu ngi ci toll nii ànd ceeg sama gars yi gis nga keew naar lañ koy def xar yaa ngi ne sëñ Fallou ñoom ne ci waañu ak soxna yu baax yi macha allah ceebu naar lañ koy def boo xam ne nii daal yow boo ci barkeeloo di nga xam ne yemut ak ceeb macha allah ku fi ñëw dootoo mag ñëw badar te asiwoo fi incha allah heure añ incha allahu rabi. ah yow Cheikh Moutala soo ma laajee fan lan ma fekk gay baal ak jëmooy naa la si sa a wax ndax fii nga ma fekk di atub alaaji sëriñ Gueye ko amoon ak alaaji Bada gay sa bàyyi coloré am ak moom pas-pas daan defanteeg moom lu baax daan waxanteeg moom lu baax ñu ngi ci atub Cheikh Saliou Mbacke moom soxna Ndiaye Diop mbañ Diop Mbacco ñu ngi catub Cheikh Abdou Guèye tubaarkàlla masàllaa mbokk baayam Cheikhouna Guèye ak Jili Guèye min jàkkaar lool ñu ngi catub Cheikh Bachirou alxuraan soo Bachirou alxuraan boo ko waxee rek matale nga lépp ndax moom léppam alxuraan la tubaar tubaarkàlla démb la nu ñëw ba léegi mu yendoo waa kër baayam waa kër yaayam ca kenn merul ñii ngi jóge tubaa ñi jóge Xabaan ñu ñëw Badar Serigne Bachirou loo xamante ne si dinañ ko terale gor rek ànd na ko ki magam terale nañu ko daaneel nañ gileem yi nag yi daanu na xar yi daanu na ginaar yi daanu na Cheikh Mourtala fii dara manqué wu fi tubaarkàlla danoo ndékki ba kontaan waaye nag dañu liw bi liw bi ngelaw li ci lépp soxna Guèye njëkk a judd njëkk a baax njëkk a màgg njëkk a tikki dara bëggul dara lu paradise bëggul kenn ku mer dama ko ne léegi tey boot nga pël boot boot maa tëgg a géwal soxna na gudd fan te yàgg fi ca wér waaye dañu ko daanu sa ndey la ba max lii lépp aji njaayo juba ki yàgg muñ ku da nga muñ at bi ci badar mooy ba ca Touba badar kon tubaarkaala macha allah ndekki na dara jeexul kafe gi bari na mburu mi bari na laax bi bari na caagri bi doy na ñu ngi nii ak suñu ceebi naar ñetti mbana lan taal maragu ne def nañ ci ñetti xar muy juróom-ñeenti xar wékk nañ juróomi xar muy fukki xar ak ñeent tubaarkaala fas yéene ko def ree rek vermicelle kii nag ceebi naar la kii nu koy toggal muy xale bi Maroc la jóge moom laalul dara loo xamante ne si épice la bu nu neexut lépp Maroc la jóge daal boo ko bëggee dégg ñu di la ñaanal yooyu tamit gay bàll ak jëmm yàlla sa taxawaay yàgg ndax dara ñaawul xam nga ni rek ñëpp ñoo bokk yem ci yow ba tubaarkàlla maa ngi def li ma war waaye fu ma dem fekk la fa ngay def lu baax yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa jàmm yàgg borom télé bi nga xamante ne ñu siiw rek nga bëgg